dam bay nga ne alaay tamsir seere coon pikit waaw alaaj dam alaay tamsir coon jikko mën na fee dajale ku nekk alaaji fallu mbàkke man tamsir seen communicateur sama eh waay samba sama waay jaay jaay yi ngeen ngeen doy sa kum ñor bu oto yi mayee nan eh eh sal may aksi na oto ma ngi noonu du aksi DC aksi dawale gemeñ dawale borom moto yi lii mooy seen ndawtal si bis bi cey cuun bi dig sama waaj ana borom balak bi ngénteel cuun bitik Masalah. allah. soxna masalah, dem Masalah. salon bay DG mais Abdal kontaan nañu ah. ndax wax dëgg fa yàlla nii nga defal cuun rek noonu ngay defal gaay yëpp nga jàmbaar nit ku yàlla baaxal xam nga na xew yi ci nga bokk waaw ac bismillah déglul boy ñaa del déglu boy ñaa déglu boy ñaa la xewul gone la ana oto ba mënatuma koo gis laay laay la la <laughs> la la moom ndax moom mi toog li may wax nii nag li may wax nii nag parce que léeg-léeg nit mën naa wax njaakaan day wax parce que léeg-léeg nit mën naa wax caméra yi tax muy wax ak li may wax bu fekkee ay fan la yàlla bu ma yem ak li may wax bu fekkee du dëgg yàlla bu ma yem Cheikh Omar Bara Sarr moo njëkk yëkkati euro may moo yëkkati njëkk yëkkati euro xaalis ci Italie xaalis bu France maa ngi yor sama 307 bu ba. indi ko ci moom indi mu dugal ci bureau ba. nee na mu dugal ma ci bureau ma. compte coon. ma ànd ak coon. dem ko. dem maa bari. mu bari. ay tarangam du jug ci te mu doon ku mën nag. te mu doon ku mën nag. ci ñaan gi mu ne. ci ñaan gi mu ne. ndax keroog bi ma Macky Sall woowee. ndax keroog bi ko Macky Sall woowee. ma woo ko. ne ko Macky Sall damaa woo. ne ko Macky Sall damaa woo. mu ne ma jaar fa. mu ne ma jaar fa. ma jaar fa ma jaar fa. mu xool ko mu xool ko. damaa jokkoo ngeen de. damaa ah, jokkoo ngeen de. waaye boo yee ñi nga xam ne mbooloo mi fi daje ñëpp. nee na di nuyu waajuram yi nga xam ne bu góor mi xam ne lépp mooma nee na mi ngi ñaanal waa juróom bu jigéen mi nga xam ne ma nga àllaaxira nee na man sama yaay dama koo bëgg ba nee na ni ma ko tuddee doom nii sax nee na bëgguma kaa wax ci moom nee na bu ma ñëwee nga ne ma sa yaay nga tuddee doom rek sama rongoñ mooy wadd na ndax damaa bëgg sama yaay ba pare ba pare li nga xamante ni fekkew nee na li nga xamante ni fekkew ko tuddee ma jooy ndax buñ ko tuddee ma jooy damaa xam ne ndax damaa xam ni. lii da koo liggéey. lii da koo liggéey. ba pare fekkewu ko. loolu moo ma jooyloo. nee na looloo ma jooyloo. mu nekk nit koo xamante ni. nee na mu nekk nit koo xam ni. képp koo xamante ni bokk nga sama famille. képp koo xam ni bokk nga si famille. li may wax Serigne Saliou Thioune mii sama ginnaaw. nee na li muy wax Serigne Saliou Thioune mii si ginnaaw mën na ko xam. ak Cheikh Diouf mën na koo xam. nga xam ne Serigne Saliou mii. Tamsir mhm. waaw comme ni nga ko waxee rek ba léegi ñu ci njëndali mhm. Tamsir jëm jooju yaa ma ko présenté Baye Thierno Ndiaye Baye Thierno Ndiaye bi nga xam mhm. nga xamante ni alum ji mujj dëkk ndax op dafa foog dafa may jàpp doomu koo mën a doon bu ma gisee nga doyee dal say waajur du ma mën ci yow waaye bu ma gisee nga fonk say waajur. tam si seen communicateur sama xol sedd. nee damay mën ci yow lépp. kon maa ngi am mbég. maa ngi am kontante. ngi sant di gërëm ñëpp. di ñaanal ñëpp yàlla. yàlla faj aaju yëpp. ci barke Seexul Xadim. nee yéen communicateur yi nag seenu cant. nee yéen communicateur yi seenu cant la ma ca wax rek wax. Eh, ndax la ca ak ñaan laa koy mottalee dafa fekk ne doomu aadama bi mënta ñàkk am liggéey ne ki ñëw ne man kat wax lu baax laa jël def ko muy sabab liggéey kooku kenn gënu ko liggéey ndax yonente bi dalalee Baye Thierno ma jël lii toog ko ci loxo cuun bitik Baye Thierno Ndiaye noonu lay siyaare mhm. di la ñaan yàlla dafa la jàmm barke Sëriñ Touba cuun bitik mm-hmm. li ma yor nii cuun magasin trois cent mille la te mm-hmm. eh, Omar Bara Sarr nee na da mm-hmm. def ko téere baat cent mille téere baat moo la ko jox addi 300000 la la Cheikh Omar Bara Sarr seen diggante yéen ñaar nag nee na lii ab lu yoo la rek ah. waaye li des moo ëpp boo bàyyiwul du bàyyi te xanaa ne doo bàyyi waaye moom it du bàyyi. beneen takk beneen takk bi ngeen saa waay bi ku ko may ku ko way mu may la ku ko tooñ mu duma fukki junni la. communicateur yee ko moom. loxoom suñu bitik Baye Thierno Ndiaye noonu lay siyaare mhm. di la ñaan yàlla dafa la jàmm ci barkeb Serigne Touba suñu bitik mhm. li ma yor nii cun magasin trois cent mille la te mhm. eh. Omar Bara Sarr nee na nga a ko téere baat cent mille a baat moo la ko jox addi 300000 la la a Omar Bara Sarr seen diggante yéen ñaar nag nee na lii ab lu yoo la rek waaye li des moo ëpp boo bàyyiwul du bàyyi te xanaa ne doo bàyyi waaye moom it du bàyyi. beneen takk beneen takk bi ngeen saa waay bi ku ko may ku ko way mu may la ku ko tooñ mu duma la. la ñeent fukki junni la. macha allah sering Serigne sering Bass Serigne harba, Bass xar baax sama waa ji macha allah très bien teewaay bi daal rafet na ndax yéen koñ bii nu nekk ku fi am bis rek ngeen ñëw taaral te ngeen doon ñoo xam ne Serigne Touba dafa defar seen maam Serigne Mbaye Bass bu baax Serigne Moustapha Bass bu baax mi nga xam fu mu jógee day ànd ay mbokkam rek lay àndal di nit ku yàlla ba ñaan sa ak sama yàlla ko man Tamsir seen communicateur sama xol set ah waaw nee na ma ndax sa numéro am ma wéef loolu de rey nga sa waa ju baax ji de loolu rek la may defal yàlla na yàlla doon seen trang yombut pour ñu loolu moo tax waaye kon ñëw lay def barke sëriñ bi te bi nag lu bëri xam naa ndax mboolem teraanga ju defal balaa bët a set ñu woo ma seedeel ma teraanga léegi bi mu ñëw rek féete gi ma féete moom moom saa su ne mu ngi koy wane bu ñuy wàcc bi damaa woo téléphone ñu sa daral ga jënd xar yu bëri mu di ko séddale keroog day nga xamante ne xam la jëm la neexoon da nga naan sécurité yi damaa séq ñoom weer di leen fay kon séquma ak ñoom xarit tabaski ndax lii ma leen di fay si la ñuy jënd xar waaye defoo loolu ñeewante gi nga am si ñoom ak seen njaboot moo tax da ngaa jëndee xar séddale ñëpp doog di jënd nag ay xar jox say sëriñ jënd ay xar yóbbu sa biir kër ak say mbokk keroog bi nu ñëwee sa waajur gërëm la te ngërëm ak ñaax ñaax seen sëlam di nuyu muy yàlla baax man li nga xam ne màggal këram laay nekk ak tabaski lu mën di doon xam naa kan mooy Cheikh Omar Bara Sarr te du sàmballaar am na ñoo xam ne bu ñuy jëf duñ bëgg seen mbokk di ko yëg ndax sàmballaar buy jëf du bëgg ku dend moom yëg du bëgg mbokkam yëg ndax dañuy naan bàjjanam diw la ko war na njëkkee wala nijaayam diw